bonjour à tous merci d'être avec nous. On se retrouve comme tous les matins, lundi, euh, lundi, euh, lundi, lundi, lundi, voilà, lundi 8 août 2016, 7h22 juste. On démarre avec quelques minutes de retard. D'abord, le premier journal de ce matin, des infos euh, présentées sous forme de bulletin par Chérif Dia. Bonjour Chérif. Bonjour Pape, bonjour à tous. Voici le avec euh, de la politique, le Parti de l'indépendance et du travail PIT a un nouveau secrétaire général. Il s'appelle Samba Si, ce de formation élu avec 75% des voix à l'issue de l'Assemblée générale de ce parti de gauche succède à Maguette Thiam. Quant ministre du Travail Mansour Sy, il est le désormais président du parti, un poste nouvellement créé en marge de cette Assemblée générale. Nous y Arrivée de l'hivernage au quartier, au de Wakam, le problème d'assainissement refait surface. Là-bas, les habitants disent rencontrer d'énormes difficultés face à l'évacuation des eaux de pluie. Reportage Mambiram Diouf, les images Younous Diata. Quartier Cynthia à Wakam, déjà quelques gouttes d'eau et renaissent les difficultés liées à l'hivernage. Nous sommes dans la canalisation. Ici, les canalisations sont bouchées, ce qui fait que l'eau de pluie ne circule pas bien. Le mauvais état des ruelles, c'est vraiment un problème. Le poteau électrique que vous voyez là ne fonctionne pas bien aussi. Afin d'avoir eau passée, ce sont nos enfants qui euh, enlèvent les eaux stagnantes en utilisant des outils comme des pelles. moo moo doon tubba ay suuf di ko sotti pour à cette période de l'année, ils ne dorment plus que d'un œil. Parce que on interdit même nos enfants de sortir parce que nous ne sommes pas en sécurité. Les fils électriques cèdent souvent. Ah, nous veillons sur les enfants et entretenons également la maison. Le charme de l'étroitesse des ruelles, le facteur de raffermissement des liens de voisinage, contraste avec la difficulté qu'ont ses habitants, par exemple, à évacuer leurs malades. Les véhicules ne peuvent pas accéder ici. Conséquence, l'évacuation de personnes malades pose problème. Et quand une personne décède, le corps est porté jusqu'au cimetière. ne souhaiterions vivre ailleurs. Le relèvement du niveau d'assainissement à Sintia, un quartier de Wakam, reste une préoccupation majeure des populations. Retour sur la célébration de la journée nationale de l'arbre. 13 millions d'arbres à planter, c'est l'objectif que s'est fixé le ministère de l'Environnement pour sa campagne annuelle. Une annonce du ministre lui-même, Abdoulaye Bibi Baldé, c'était hier à Kolda. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Nous préparons euh, le 7, euh, la journée de l'arbre, euh, effectivement s'il si y a toutes les dispositions ont euh, pour un bon déroulement, surtout de la journée de l'arbre, et pour satisfaire toute la demande en matière de plan. Et constaté que effectivement euh, les taux de réalisation sont corrects. On fixait les mêmes objectifs que l'année passée, euh, 13 millions au niveau donc de l'ensemble du territoire. Euh, il y a de cela deux ans, euh, nos efforts étaient euh, tournaient autour de 5 millions. en niveau de réalisation. L'année passée, nous sommes arrivés à 9 pratiquement nous avons doublé euh, ce que nous avions trouvé sur place. Et aujourd'hui, on maintient le cap pour euh, atteindre la barre des 13 millions, parce que ce que nous souhaitons, c'est que autant de Sénégalais, autant d'arbres à replanter. Nous fixons cela comme objectif et nous donnons tous les moyens euh, pour atteindre cet objectif. L'arbre parrain cette année, c'est le Une journée célébrée également à la commune de Dieuppeul-Derklé. Là-bas, le flamboyant jaune a été l'arbre parrain. Occasion pour le maire euh, Cheikh Dieye d'inviter les Sénégalais à s'inspirer du modèle rwandais. Le Rwanda qui, appelle ses citoyens également à reboiser beaucoup d'arbres pour préserver l'environnement. Cheikh Tidiane Dione, les images Thierno Laurent Mendy. Plantation symbolique de quelques arbres dans une des principales artères de la commune de dieuppeul une étape importante pour célébrer la journée nationale de l'arbre Le maire de la commune demande aux Sénégalais de s'inspirer du modèle rwandais. Rwanda aujourd'hui sur le plan de l'espace vert et en quatrième position, je pense, au niveau international mondial. C'est dire donc que des efforts et des sacrifices réels ont été consentis par le peuple rwandais. Mais ces expériences, nous devons vraiment, nous, en inspirer pour faire de sorte qu'à l'exemple du Rwanda, le Sénégal, qui un pays vert puisse retrouver justement toute sa verdure. Le Sénégal dispose d'une superficie de 3 964 hectares de forêt classée, soit 7%, loin des euh, euh, est préconisé, ce qui veut dire un gap Mais il faut dire que c'est une une forte concentration humaine et est vraiment très restreint. Préserver la flore, une préoccupation majeure pour les autorités compétentes, le colonel Diallo déplore certaines actions qui continuent de dégrader l'environnement. Pour d'ordures dans les forêts, les coupes euh, clandestines, euh, de sable au niveau de la bande de Filabo, euh, j'en passe. C'est cibles qu'il faut conscientiser. Et ce Maintenant, il faut avoir des programmes arti comme planter un arbre, contribuer à l'amélioration du cadre de vie de l'être humain. Pour cette année à Dakar, plus précisément dans la commune de Dieuppeul-Derklé, le flamboyant jaune est l'arbre parrain. Avant de se quitter ce reportage vacances à la plage d'Angor, un réel dispositif de sécurité est mis en place pour le bien-être des candidats à la traversée, gilets de sauvetage, nombre limité des pirogues Les vacanciers apprécient cette mesure des autorités. Les piroguiers également s'y frottent les mains. Voici le reportage de, de Aïssatou Paifal Diafaraba. C'est bien les vacances. Tenues légères, vendeurs d'accessoires de plage, surveillants, piroguiers s'affairent. La plage d'Ongor, bondée, accueille les vacanciers. Mais pour plus de sécurité, toutes les dispositions sont prises. Je suis venu avec euh, les volontaires euh, euh, de la ville de Dakar. Donc euh, depuis très tôt le matin, nous sommes là en attendant euh, que les gens viennent. Alors ils, sont, ils font le rang, il y a la sécurité, ils passent un par un. Alors, il n'y a pas de bousculade, il y a un contrôle. Les gens les aident à enlever les chaussures et à se mettre en colonne. Et euh, les pirogues ne sont pas pleines. Pour la première fois, elles viennent à Ngor écouter le bruit des vagues et profiter de la brise marine. C'est la première fois que je viens à Ngor. Je suis rassurée parce que la traversée se fait dans de bonnes conditions. Nous venons de Thiès, c'est toujours bien de changer d'air. restaurants, hôtels profitent eux aussi du rush pendant ces grandes vacances. Les propriétaires des pirogues ne diront pas le contraire. Pendant les grandes vacances, tout le monde se rend Nous ne louons pas nos pirogues. Il faut payer francs pour la traversée et tout se passe très bien. Il y a certaines qui amènent à manger pour rester sur la plage. Il y a certaines qui mangent là-bas, à côté. chez les, chez restaurants qui sont là-bas. Bon, il y a certaines qui viennent chez nous et il y a d'autres, restaurants ici. En tout cas, y aura, du monde. <laughs> Une petite balade en pirogue pour démarrer la semaine en beauté. Un peu de farniente, pas si mal que ça. Euh, Jeux olympiques, les Lions du basketball jouent leur deuxième match ce soir face à la Chine. Hier, les protégés de Tafagay se sont lourdement inclinés face aux Américaines. Score final 121 contre 56 pour les Lions. C'est fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yaoulen, c'est tout de suite avec Pape Diallo. Merci Chérif, c'était le premier journal de ce lundi matin. Nous remercions toutes les personnes et rendez-vous dans quelques minutes. ñu lay gërëm bu baax Chérif lundi ngoog dafa xaw a jafe euh, pour nga yeewu ci euh, voilà mais bon ñu ngi leen di gunge ak fu ngeen mën ci nekk euh, bu ca kanam ñu wax leen di leen pareel tey laata ngeen di génne kër yi itam mën nañu leen jox xibaaru jaww ji ngeen mën a xam température yeeg ñoom seen lu ñu ñu. Dakar Diourbel 26 euh, Kaolack 26 Tambacounda 25 Kédougou 26 Kolda 26 Ziguinchor euh, yeewu ak lu toll ci 26 degré euh, thermomètre bi dina yéeg ci après midi bi boori midi daanaka jëm kaw loolu moo tax météo di xamal ni itam ne température bi tey Ndakaaru dina yendoo ak lu toll ci 30 degré. Euh, Saint-Louis dina yendoog lu tollu ci 32 degré Podor euh, yendoog 38 euh, Matam waxi nopp yendoog lu tollu ci 38 degré Linguère yendoog 36 degré Diourbel 36 Kaolack 35 degré Tambacounda 35 Kédougou 34 degré Kolda yendoog lu toll ci 34 degré Ziguinchor dina yendoog température bu toll ci 33 degré. ñu jox leen waxtu euh, marée yi pour yéen ñi nga xam ne yéenay faral di dem géej alors euh, météo mu ngi ñuy xamal ni tey ji marée bu njëkk bi am na nañu ko marée ot bu njëkk bi am nañu ko ci guddi gi bi minuit cinq jotee euh, bi ci taftalu daanu ko amaat ci bëccëg bi boori midi bu midi bu midi vingt jotee exactement lu jëm ci marée basse yi marée basse bu njëkk bi am na nañu ko sànq ci fajar gi bi cinq heures cinquante cinq du matin jotee bi ci topp daanu ko am ci ngoon gi bu dix huit heures jotee waxtu yu gën a baax pour dem nappi météo mënu koy xamal euh, mu ngi nekk ci euh, fajar gi euh, desandi na sax asafurlaa jeex na moment yi gënoon baax ci suba gi par exemple mu ngi nekkoon diggante 5 heures du matin jàpp 7 du matin diggante 5 heures 14 jàpp 7 heures waaye mën ngeen xaarandi ndax beneen jamono yeneen i waxtu yu gën a baax pour sunu mbokk nappkat yi dina nekk ci ngoon gi diggante 5 heures jàpp 7 ci ngoon voilà diggante 17 heures 33 jàpp 2023 jant bi xëy na tey jii ci fajar gi bi 6h54 jotee euh, dina tëri euh, bu 7h36 euh, jotee maanaam 19h36 loolee xibaaru jaww ji la woon ñu ci gërëm bu baax waa service national météo ak sunu xarit boobu boobule di Bamar Diagne. ñu jox leen euh, taux de euh, change bi laata waxtu julli ngeen mën a xam euh, bu ngeen deewee ci CFA ci ñaata lay toll ci waxtu wi ak yeneen i xaalis yu yeneen dëkk dollar bi la koy njëkkee un dollar ci waxtu wi ñuy waxee ak yéen mu ngi toll ci 591 virgule 364 francs CFA un euro mu ngi toll ci 655 virgule 957 francs CFA une livre sterling xaalisu Grande-Bretagne Grande-Bretagne mu ngi toll ci 773 virgule 685 francs CFA un yuan chinois mu ngi toll ci 88 virgule 6864 waxtu julli euh, ñu jox leen ko itam ci euh, suba gi suba teel julleem mu ngi toll ci 5 euh, heures 40 du matin tisbaar julleem mu ngi toll ci 13 heures 13 heures 16 takkusaan julleem mu ngi toll ci 16 heures 25 timis julleem mu ngi tollu ci 19 heures 41 gée mu ngi toll ci 20 heures 17 ñu jàll ci euh, jàngu yi pour suñu mbokku chrétien yi alors euh, tey ji euh, cathédrale am na benn messe ci suba gi benn messe lay am ci ngoon gi 18h30 église bu Saint-Joseph am na benn messe tey ci fajar gi bi 7 jotee dina amaat messe tey ci ngoon gi 18h30 de l'Ouganda foofee am na benn messe ci fajar gi bi 6h30 jotee dina amaat beneen messe tey ci ngoon gi bu 18h30 jotee cathédrale benn messe moo fay am. Euh, tey ci ngoon bu 18h30 jotee loolee euh, mbokk yi téléservice bi la woon ñu leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média 7h36 euh, mooy doog a jot ci ndimbalu Chérif Dia ñu jox leen yéen a kaay yeeg seen i xët laataa Mamadou Mouhamed Ndiaye di yegg si ca kanam pour xóotal kooku revue de presse bi Chérif dañu koy njëkkee ni fajar gu jot ak l'observateur mi xëy dugg ci li mu tuddee prolongation. Euh, de ses de ses posts euh, sur Facebook l'ex-directeur de la prison de Rebeuss traduit euh, devant le conseil de discipline. waaw ki jiite woon kaso bu Rebeuss di Mamadou Lamine Diop moom ngay gis fotoom ci une l'observateur bi moom nag la taxoon ñu jëlee ko fa mooy ay post yu mu doon def ci page Facebook am ñu jàpp ni dafa salfaañe obligation de réserve fonctionnaire ba tax ñu daal di ko fay jëlee. moom nag commission de discipline déglu nañ ko te boo sàgganul buñ sukkandiku ci yenn kaay mënees na ko rajjee manaam dàq ko yenn kaay bi ñëw na également ci rek génn union des magistrats yu Sénégal seen assemblée générale bi doon am ca sali ñoom nag ba léegi ñi ngi bëgg rek kii di maam Adama Gueye jafe-jafe yi amoon ak moom ñu daal di koy réglé bu fekkente tamit attaques yi nga xamante ni dañ leen koy song ak tamit ay tuuma bëgg nañ mu daal di dakk ñoom union des magistrats ñoo ko xamal seen jëwriñ di maître Sidiki Kaba. mu ngoog euh, l'observateur ba tey ñëwaat na ci taxawaayu sunu gaynde yi ci wàllu basket ak euh, États-Unis 121 euh, contre 56 loolu nag xaw nañoo miti tuuti mais bon ba léegi ñu ngi ak suñu équipe nationale bi de toute façon bu ca kanamee dinañ ci gën a waxtaan ak Mamadou Ndiaye comme lundi bu jot ci lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram et puis l'observateur Chérif ñëwaat na seq waxtaan ak Aïda Sow Diawara mi nettali la ko daloon ci sud euh, yooyu yëpp nag mu ngi ci l'observateur bu tey bi assemblée générale bu UMS euh, les magistrats défilent pouvoir loolee mu ngi ci l'observateur waaye li ma liir léegi moom la yéenekaay bi di témoin tey xëy def ci xëtam bu ñëkk njëkk. waaw témoin te wax rek ci union des magistrats di kuréelu àttekat yi fii ci Sénégal ñoom ba léegi rek li ni sàkku ci nguur gi moom mooy ñu moom seen bopp lii di conseil supérieur de la magistrature njiitu réew mi bañ koo jiitati ak tamit ministre de la justice. ba tax na kon yéen bi ne ñoom dañuy défier pouvoir bi fan ngankoon daal bàyyi woon ko ba léegi ci wàllu di wàllu indépendance. loolee euh, yéen yu bëri dañ cee euh, ñëwaat euh, libération xëy na ak leneen jëm ci li mu tuddee guéguerre ci biir APR guéguerre au sein de l'APR de Dakar affaire Abdoul Mbaye Nafi Ngom Keïta Ousmane Sonko communication de l'exécutif yaa xam ne les pieds dans le plat. waaw yaa xam moom mi secrétaire d'état bi ñu dénk wàll communication rek dellusi na. ci actualité bi coow li nga xamante ni am na ci waa APR ndax moom militant la fa rawatina fële ci Dakar Plateau mbiram Nafi Ngom Keïta Ousmane Sonko ak tamit communication bi nga xamante ni mooy communication gouvernementale moom daal dafa mel ni yu ci bëri rafetlu ko nemeeku na ci ay sooxe moom Yaxam mbay moomu. nekk ci yéenekaay bi di Libération. yéenekaay bi di L'As dafa xëy tey ak président Macky Sall ñu ngi def ci xët bi ni l'APR dans la confusion. Euh, loolee mu ngi jëm ci lii yéenekaay bi tuddee choix des candidats aux élections des HCCT. waaw muy élection yi nga xamante ne mooy au conseil des collectivités territoriales yi nga xamante ni ñu ngi koy waaj amal ñoom waa APR nag ci pëccxoo la nekk ndax soxna yi ñoom dañoo bëgg rek ñu daal leen di jox euh, poste bi ñii di ay candidats yi nag liste yi dafa bari trop ca Kébémer Tambacounda Kanel. ak Koungheul fu nekk daal waa APR dañ fa paacoo tàkkalikoo fa mhm. loolu nag yéenekaay bi daal di ci indi ay leeral. yéenekaay bii di quotidien xëy na tey ci xëtam euh, def na taalu nataalu euh, maître waa Wade président Diouf euh, ba ci président Macky Sall loolee mu ngi jëm ci lii mu tuddee confidence sur la nationalité de ses prédécesseurs Macky valide Diouf e recale Wade. waaw ba léegi mooy coowal nationalité yi ñu fi gis euh, fan yi ci Sénégal moom nag ñi ko jiitu ci bopp réew mi di Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf moom dafa mel ni buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi dafa validé bu Diouf kale bu Abdoulaye buñ sukkandikoo ba léegi ci yéenekaay bi moom nee na président Macky Sall moo ko ne moom Abdou Diouf yónnee na ko copie carte séjour am fële ca France ba léegi buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi di le quotidien voilà mu ngoog ci quotidien loolee moom il foog ma liir ko ay carte de séjour ci ay président wu dëkk <laughs> il faut que <laughs> il ko pour ko parce que euh, xaw na ma jaaxal tuuti jour ji euh, moom dafa def ci xëtam tey kii di euh, président Macky Sall incapacité des apéristes à dompter xalifa Sall à Dakar Macky sort la cravache waaw dafa mel ni kon président Macky Sall kontaanul ci ñooñom yi nekk fii ci Ndakaaru ndax rek boo xoolee nee na responsable APR yi nekk fii ci Ndakaaru ñoom mënuñoo fexe ba rek daal di jàkkaarloo ak xalifa euh, Sall ba tax moom kontaanuñ ci moom nee na dafa bañ sax pour recevoir ay responsable euh, APR te tamit euh, jeune républicain ñoom jàpp na ni Abdoulaye Diouf Sarr lañ joxoñ baaraamu tuuma. enquête amal enquête ci casso yi ak li mu tuddee l'injustice de la justice longue détention préventive et dossier en souffrance. waaw parce que bu ñu sukkandiku ci yenn kaay bi population carcérale bi maanaam doomu Sénégal yi nekk ci kaso bi daanaka. Sénab lim toll na ci trente six mille vingt six détenus yoo xamante ni dix sept mille trois cent quinze yëpp ñi ngi fii ci Ndakaaru maître Bamba Cissé moom jàpp ni procureur bi nga xamante ni daal moom mooy procureur bi joué rôle filtre maanaam rekk fexe ba nga xamante ni ñi seen yoon nekkul fële ca kaso ba ñu génn leen fa muy ab dossier bu am solo bu yéenekaay bi def. ci nekkinu sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kaso yi. li nga wax sànq ti journalu 7 heures bi ci français am na yenn kaay yu ci xëy muy euh, njiit bu bees bu parti bi di PIT populaire da ci xëy tey waaye mu ngi ñu xamal ci xët bi ni euh, les cocos de xaar yàlla euh, coupe la poire en deux. xaar yàlla moo foofu la makkaanu te nekk ba tax na ñoom xaaj nañ rek njiital parti bi ci ñaar kii di Samba si nekk secrétaire général bi Mansour si min dénk wàllu liggéey fii ci Sénégal moom it daal di nekk rek président bi loolu nag guléet lan ko nemmeeku ci PIT ndax secrétaire général rek lan daa am léegi nag bopp parti bi ñaari kilifa ñoo ci nekk ba tax yéen kaay bi dina coupé nan foire bi en deux. grève euh, dawalkat yi ñu tuddee euh, euh, transporteurs yi direct info def ci xëy tey mu ngi ñu xamal ni grève bi dañ ko amal le 17 août 2016 loolu moo tax mu def ci xëtu yéenekaay bi nii vers une paralysie totale du secteur loolee mu ngi jëm ci wàllu dem beeg dikk bi. dem beeg dikk boobu boo sàggunul kon dina amee jafe-jafe cooxe doon ko ci nemmeeku ndax la liggéey ka ci nekk ñoom. fukki fan ak juróom ñaar bi ci weeru août bi di semaine prochaine boo sàgganu dina dem ci grève buñ sukkandiku ci yéenekaay bi di direct info. merci Chérif loolee yéenekaay la woon ak seen xët bu ca kanamee ñu xóotal ko boori 9h45 ak Mamadou Mouhamed Ndiaye en attendant dañu lay bàyyi nga dem noppalu te xam ni euh, di nga dellusiwaat ci plateau bi fileeg ay minutes pour beneen journal bi nga ñu fas yéene présenté ci wolof 7h42 mooy euh, doog a jot Alfi mu ngi fi Mamadou Ndiaye DJ Bouba euh, moom it mu ngi fi Fama Thioune ak Kia Aydara. préparé lañ leen yu am solo yoo xamante ni bëggee nañu ko euh, ngeen euh, tàmbalee ko euh, semaine bi lundi c'est jamais évident mais heureusement ba yeewu leen moo ngi fi man je me demande naka la nit ñi def pour yeewu di ku ci nekk peut-être am nga secret man en tout cas mënuma miin lundi yenn saa yi mu énervé ma loolu ki ko créé laay war nag. pour am lu ma jëflante ak moom bonjour les gars bienvenue je sais pas wax leen ma lan ngeen di def pour yow lan mooy sa secret pour yeewu lundi bu baax. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu d'abord ah di nuyu ñu ñuy euh, seetaan mais Pape Cheikh dañ di amul secret de. yow par force la yow tam fu tam mooy yeewu fajar la. donc voilà man moom mooy loolu. pour la première fois de ta vie nga yeewu fajar la. <laughs> non kon moo tax nga ñëw fi quatre heures du du matin. cinq heures moins le quart laa fi ñëw. naan ñett météo lundi tamit ba yow yow. mais lundi yombul. yow nooy def xaw ma sax xaw ma sax dama yeewu malgré moi Mamadou Yaye comment tu salaamaaleykum salaamaaleykum di nuyu ñi ñuy seetaan Pape Cheikh lundi dafa metti léegi dama doon xulóom euh, Raphaël. ci biir woote téléphone mu ne ma yegg seegoo ba léegi ma ne ko yegg seegu ma génnagu ma <laughs> wàcc wàcce ko ba léegi ma ne ko génnagu ma maa ngi ñëw. fekk instant mu ne ma suba moom tey mu ne ma suba moom bu yeboo nga xam ne dama lay teel a woo nga teel a ñëw ma ne ko yow bi bee métti rawatina <laughs> leen di ak dimanche bi xam nga weekend bi loo ko tàmm tàmm doo ci doo ci am habitude Alfie euh, comment tu fais pour yeewu bonjour Pape Cheikh euh, motivation Pape Cheikh su ma xalaatee ni su ma wàccee damay dem nalawaat. Uh-huh. donc daf may motiver pour ma jóg ah, waaw donc yow dafa am lu lay motiver. waaw man su ma xalaatee ni su ma may wàccee damay dem nalawaat. donc automatiquement je me lève. wax leen ñu sur Facebook <laughs> euh, wala ci Twitter naka ngeen di def pour yeewu euh, peut-être ñu mënul yeewu bu ñu toppee seen conseil yooyu dinañu mën a yeewu comme il faut parce que man comprendre naka la nit mën a naka leen di fajar. lii man mënu ma ko comprendre après ne me dites pas lu tax nga yeewu toog di wax mais motivation bi mooy fin du mois kon du ma diri saaku ceeb quoi c'est ça donc affaire yi motivation la 744 dans quelques minutes ñu dem jardin wu yeewu leen fekk fa waa déglu naa ko waaw beneen style la indi ah ah mais oui tu sais moi au départ li may wax woy bi xam nga ki ma ko doon wax daf ma xaw a soof donc du coup je me dis bi <laughs> neexul mais bi mu ñibbee damaa làqatu déglu ko. <laughs> Ah daal di snap waaw làqatu boobu baax na ci am. Ah. Ah. def snap c'est-à-dire léegi bu dama ko repeat repeat repeat xam ngeen repeat. waaw mm-hmm. repeat mooy bouton boobu ngay bës mu ngi di ñëwaat dama ko repeat. indiwaat ko je te jure. ah mais yow animateur nga xam nga repeat. non xam naa moo nga grave Baye Cheikh ci euh, single Viviane bi. c'est un son club. ay sonorités yu xaw a kii un peu Niger très très très africain. fii nag dañuy wax ay wax normal. waaw très très émission bi laa wax émission bi am nga problème. mais waxuma ma ne Niger ak la. c'est son Niger son club la en fait. yoo xam nga li ma la wax animateur la waaw. déglu mais way bi dafa. dafa été dafa étéwee quoi. waaw dafa étéwee en fait. voilà très beau. analyser ces. waaye vidéo bi surtout vidéo bi. c'est-à-dire euh, après euh, peut-être am na ay jamono yoo xamante ni gars yi naan Viviane il faut que mu ñëwaat il faut que mu cartonné waat jot na génne benn album mais c'était pas trop ça même bu fekkee album bi neex na mais carton euh, bi Viviane daan am je pense que jotu koo am sax ci album boobu même si ça a été bien réalisé parce que moi j'en sais quelque chose mais là je pense que woy bi dina dina am lu mu lu mu yeewaat ci ay ci ay fansam et tout ça ah. et puis c'est normal et puis parce que Viviane dafa jëm ci ci événement. il faut mu am lu mu fu mu ay base yu mu tegaat. ok pour gars yi nag mën a préparer le 26. d' accord yow justement sax émission bi yëpp tey chaque instant nañ teg waaye nga commenté ci. jeex na parce que professionnel la xam nga animateur rajo. allez Viviane bi lañ leen di yeewee tey c'est un très beau titre euh, docteur damaa loof ba dof mais xaw ma xaw ma lu may faj une belle chanson boo xamante ni boo xasee ba euh, dugal ko sa bopp dootu ci génn euh, moom lañ leen di yeewee tey may leen ko ci suba gi papa Samba tonton Mac bonjour a vous indiwaat leen woy bi tàmm tàmm ngeen woy wu ñu annoncé rek diggante wax beeg teg bi woy bi day jeex indiwaat leen ko ngeen ko. hey eh, c'est vrai que c'est vrai que way la boo xamante ni en tout cas c'est parti ah pour un carton ah c'est parti pour mu cartonner euh, on est on est fier ñun dañuy kontaan ci Viviane bu ñu gisee lu baax euh, dal suñu artistes yi nous on est content quoi alors Bouba loo ciy commenté. alhamdulilah ciy commenté mooy euh, c'est parti ah pour mën a nekk le tube de l'été. Mm. en tout cas c'est c'est c'est parti très fort Viviane. Ah, très beau comme ni nga ko waxee sànq rek. Euh, dafa mel ni fam yeneen leen lu mu bëgg indiwaat. et c'est bien baax na ci ça fait toujours plaisir ah. gis ko euh, Viviane sur scène am leen lu mu indiwaat. voilà bon mais en tout cas on lui souhaite bonne chance de toute façon tey moom la ñu yeewoo. et puis on ne jamais fii ba yeewu leen bi jeex à tout moment woy bi euh, mën nañu ko tegaat maa ko waxoon ne woy bu neex dama koo xaw a ragal parce que dama koy latteel quoi c'est un très beau titre gis ngeen ko dëkk bu ñu naan Guinée euh, donc ñu ngi nuyu suñu xarit yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan depuis Guinée euh, boo demee itam ci yeneen i dëkk euh, suñu xarit yaa ngi foofu di ñu seetaan ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média 7h54 mooy doog a jot on va retrouver waa Olympique Club ci jardin wu yeewu leen Alfi ñoom Maas ñoom moor bu fekkee pare nañu ñu bàyyi la nga dem ak ñoom comme ça ñu jox ñu ay exercices yoo xamante ni yéen seen biir kër yi mën ngeen ko reprendre si vous voulez parce que sport dafa am solo Alfi comme euh, nu ñu koy defee chaque matin fii ci jardin yeewu leen ni euh, tey ñu ànd ci ak waa olympique club xam ngeen ni lundi ak mardi waa olympique ñooy ñëw coach Mass taxaw Mor ak euh, Ngom donc ñoom dañ koy fas yéene pelloo rek bu kenn waxee rek jox moromam wax donc noonu lay demee saa su nekk semaine passé def nañu. maanaam yu yéexi tey xam naa ñàkkul dañuy accélérer cadence bi coach ngi fi ñu laaj ko rek naka lay demee coach nuyu nañ leen fañal la soxna Alfi ça va naka lundi bi waaw sant baax Pape ngeen di def ba yeewu waaw xam nga lundi moom dafa dafa métti waaw dafa métti waxe moo day gis nga benn instant mhm. day moo a foog mu xaw a intense moom mën bi pour le reste ci bi gën a mën a yomb waaw gën a gën a kon ñu bàyyi leen ak waa olympique la jërëjëf <laughs> Eh ok, musique d'équipe. Ok. On se prépare pour la suite. Accéléré. Let's go. Une, a trois. Une, deux, trois. Ah, encore. Bébé. Et maman, on est piqué de la carte. bii ku moom waxuma la yeewu rek waaye. lundi dootu la jaaxal. dootu la jaaxal kon Pape dee def bii dimanche comme lundi ngay. wax dëgg yàlla bu ñëwee lundi ah, mën a sawar. mën a sawar a jug jeex na donc Pape sa secret nga ko. kon ñu ngi leen di jaajëfal. jërëjëf incha allah incha allah ba suba bu neexee donc Baye Cheikh merci Alfie euh, ñu ngi lay gërëm bu baax en même temps Chérif se prépare pour le journal puisque huit heures jot na il nous dit tout le temps après l'heure c'est pas l'heure euh, avant l'heure c'est aussi pas l'heure et après l'heure c'est l'heure sénégalaise ma ne ko non on va tout faire pour respecter l'heure malheureusement il est huit heures une minute donc euh, une minute xam naa di nga ñu ko baal euh, ñuy gërëm profité ci gërëm bu baax waa Olympique Club bu subaa ñu àndaat ak ñoom muy Maas muy Mor ak ñoom ñooñu nga xamante ni c'est des professionnels jour ma ne leen bu ngeen bëggee Euh, euh, def ay euh, exercice sport yu am solo n'hésitez pas ngeen dem ci saal yi parce que bëri na ay professionnels et comme tous les lundis ak di dañ ci ànd ak waa Olympique Club 8h jot ñu bàyyiwaat leen ak Chérif Dia ci jotaayu xibaaru suba gi. Pape mbokk yi ñu ngi leen nuy rafet rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média wàllu politique lañ koy tàmbalee ak PIT di parti de l' indépendance et du travail ñoom nag am na njiit lu bees Samba si la tudd wutu Maguette Thiam moom Samba si moom ab philosophe la ñi ngi ko tab nag mu am juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay xob ci assemblée générale bi doon am démb moom nag am na beneen kun ko toftal foofu ci présidence bu bees boobu di ministre bi ñu dénk wàllu liggéey di Mansour si léegi. moom mooy président bu te dinañ ci dellusiwaat ñu wax nag ak waajalu taw bi rek fii ci Wakaam quartier bu naan Sinthia foofu nag askan wa daanaka ñi ngi commencé di am tiit njaaxle ndax ndoxu taw yi bu tawee rek ñoom dañ ciy sonn bu baax ndax mbiram assainissement ak tamit lotissement kër ya moom moo leen jaaxal trop ndax yooyee kër danoo jegeloo mbedd ya daal di xat ñu ànd ci ak maam Biram Diouf ak Younous Diatta fii ci quartier Sindia nekk ci wakaam ndox mi fi wàcc nag bariwul waaye dundalaat yenn jafe-jafe yu ñuy am ci nawet. ñu sonal daal mooy canalisation yi affaire dafa fat te euh, ndox mi amul fu mu jàll mooy dëkkuwaay bu xat bi waaw vraiment buñ ci mënee dimbali moom ba ñu mën a am ndox fu mu am mu yoon bi mën a jàll dina baax trop. amuñu benn jafe-jafe lu mbedd yi daal boo génnee daal mbedd yi dañoo yàqu ban beex loolu daal moom lañ am. problème beneen business mooy suñu lampe berde bi tàkkul day tàkk ka fay. suñuy doom yu góor yi ñoo jël ay peel di ko di ka ngacca ah di ko di may yoon pour ndox mi jàll. sama doom bu góor bi mu ñëwee léegi Issa Ndiaye wàcc liggéey fii yëpp ndox la woon moo doon moo ko moo doon tubba ay suuf di ko sotti pour ndox mi pour ndox mi dem noonu la demee suñuy foos yëpp fees na. bu ñu agsee nag ci jamono ji ci at wi ñu fi dëkk daanaka du ñu nelawati. parce que bu nawet bi commencé rek ñu xale dootuñu génn. parce que fii li day dagg fu ne courant yi dañuy dañuy coupé dañuy fay waaw te wóorul. ah dañ siy jóg rek ay matuwaay rek bu tawee rek ñu daal di téye suñuy doom ñu bañ a si banni bi waaw loolu daal la ñuy def. ah kër gi kay moom dañuy defar ba mu set moom tuuri mbalit di raxas duus si defar ba mu set. mbedd yi ni ñu tëddee kër yi sës rëkk bokk ci liy defar dëkkin wi ci biir dëkkandoo yi. waaye bokk na ci jafe-jafe yu muy jur mooy ñu génne kenn ci ñoom bu tawatee teg ko ci woto suñuy mbedd xat na xat boo xam ne bu yàlla defee jàmma salaam te yow boo feebee ñoo lay génne fooy aw su nit génn àddina dañ koy jàppoo ba ar ba cimetière ba amuñu fuñ ko ñu ko dugal am ñu oto buñ ko teg fuñ koy teg fi ñu mbedd dafa xat amuñu fa oto jaar. lu ñuy fëskee ne bu ñu yàlla mayoon fi yaatu ñu dem fa parce que ku nekk sañ ngaa yaatu. ñàkk pay kañ ñu fi teg. gën a yokk assainissement bi ci quartier Sinthia fii ci Wakaam doon bëgg-bëgg goo xam ne ni ñi fi nekk bokk nañu ko. ñu dellusiwaat ci bis bi Sénégal doon jagleel wàllu garab démb la woon ci dimanche bi jëwlin ji dénk wàllu waalam bi nag di environnement moom ne Sénégal am na yéen daal di jëmbat euh, fukk ak ñett ci ay millions yi garab ngir rekk daal di aar gàncax gi ngir naataange it mën fee moom ab bii bi Baldé mi ngi doon addu démb ca Kolda ba mu doon jiite bis boobu démb nag garab gu naan ven moom lañ bëggoon mu nekk parrain bi ñu déglu ko ci micro sunu correspondant Abdoulaye Diallo. fii si pépinière régionale bu bu Kolda euh, pour saytu euh, li ñu def si wàllu euh, pépinière parce que ñu ngi waajal journée de l'arbre dimanche 7 lañ koy organiser. niveau national suñu objectif bu daaw bi dañ ko lool boobu la ñu maintenir. xam bi ñu ñëwee ci département bi dañu def fixé objectif chaque année dañuy reboiser treize millions de plants loolu la ñu bëgg a produire ak reboiser loolu mooy suñu objectif parce que treize millions sénégalais la. alors euh, lañu donc euh, bi ñu fi ñëwee à peu près chaque année en moins de 5 millions de plants lañ doon euh, am daaw am nañu ba 9 millions daanaka doublé nañu li ñu doon def donc dañuy ñaax service yi population pour ñu maintenir cap cap bi ñu dolli suñu effort pour que ñu atteindre suñu suñu option. Tiens, l'arbre parrain cette année c'est le mairie bu jëppal Derklé ñoom it euh, màggal nañ bis boobu ci wàllu garab euh, ñoom nag flamboyant jaune mooy garab gi ëpp liñ jëmbat foofu ngir rek euh, foofu tamit quartier ba ñu aar ko bu baax ci wàllu gàncaxak ak yu ni mel maire ba Cheikh Dieye sàkku ci sénégalais yi ñu roy ci waa Rwanda di dëkk boo xamante ni ràññee nañ leen bu baax ci aar environnement ñu ànd ci ak Cheikh Tidiane Dione Thierno Laurent Mendy ay plantation symbolique yenn ci ay garab lañu jot amal ci mbedd yi nekk fi nii ci jëppal Derklé mu nekk étape bu am solo loolu rek di firndeel ne ñu ngi célébrer lii di garab ci atum 2016 maire bi nag di sàkku ci askan wi ñu daal di roy lii di modèle Rwanda bi. ndax Rwanda dañ leen ràññee seen xarañ ci jëmbat garab ci vraiment toppatoo garab. donc lu mel noonu boo ko amee ci réew mi war nga di jegante ak ñoom di waxtaan ak ñoom di xool lan ngeen mën a fexe ba yéene boobu ngeen bokk ko def te muy njëriñu askan bi rek. forêt classée yi nekk ci Sénégal yëpp suñu boolee lii di seen superficie mun nañu sax daanaka mu ngi tollu ci ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent. mais boo xoolee Sénégal 7 euh, pour cent de forêt classée moo fi am te boo xoolee le code forestier national dañu indiqué un pourcentage de 20 pour cent. donc wax na ne gap bi rëy na comme léegi nag xam nañ ne région de Dakar c' est une euh, région bi nga xam ne où il une urbanisation galopante te habitat bi aussi nit ñi dañu war a dëkk parce que concentration humaine daf bari nes nees def ba mën a aar li nga xam ne moom mooy àll wi daal di nekk loo xam ne dafa ëlëm ñenn ci kilifa yi ba tax na sax kii di colonel Diallo moom li muy ñaawlu rek moom mooy yenn action yi ñuy def te doole bokk na si ñi yàq alom bi. moo doxantoo nga dem si filam yi dama xool loolu sax dafa rafetul. mbalit dafa am fu muy fu muy nekk ah ñii di góor garab yi dafa nekk ñoom aussi dañu soxla xaalis ñu mais booy boo fekkee da nga nekk góor garab am na ñu ko ñu koy liggéey mooy exploitant forestier yi ñoom dañu am ay kayit yu wër mais fii sax Ndakaaru fii. du zone bu ñuy goree garab garab amu fi. jëmbat garab mun naa am solo lool rawatina ci dundinu nit eh, ni ki ren jii nag fii nii si ndakaaru commune bu Dieuppeul Derklé moom moo daloo xew wi waaye ñoom garab bi ñu def parrain moom mooy flamboyant jaune. vacances yi nag ña nga ca weeru ut wi di weeru am solo ba tax nag ñi vacances ñi ngi dem ci géej fële ca Ngor nag traversée bi moom mi ngi dox bu baax. ba tax kilifa yi jël seen matukaay ngir yokk kaaraange gi gilet de sauvetage wante tamit yamale doomu aadama yi yéeg ci gaal yi ngir mën a dem ca traversée boobu ñoom nag rafetlu nañ ko ñoom baigneurs yi bu fekkente ne ñi dawal gaal yi ñoom it nee nañ kontaan nañ ci trop ndax ñi ngi ci am ay koppar ñu ànd ci ak Aïssatou Paye Fall Diafara Ba ku gis nu plage yu Ngor yi mel xam na ne vacances yi door na bu baax jigéen ñi sol seen ay tenue de plage ñiy jaay accessoire de plage itam fees fidèle surveillant yi ñi moom gaal yi ñoom ñëpp ku ne di yëngatu ci li la wax plage de bi fees dell waaye nag ngir yokk kaaraange gi disposition yëpp ñu jël ko. ñun ñun ñooy sécurité bi jógee ci volontaire euh, la ville de Dakar bu ñu jëndee ticket ba noppi bala ngay yéeg ci euh, pirogue bi xale yi dinañ xool gilet bi boo mënul takk bi ñu takkal la ko yeewal la ko volontaire yi ñoo la koy defal nga yéeg ñu jënd say dàll pour que mu sécurité ci pirogue bi doo barastiku wala yooyu donc euh, pirogue bi aussi du fees ba ëpp le nombre suffisant le nombre seulement moom mooy dem. xale yu jigéen ñi Thiès lañu jóge bi mooy seen yoon bu njëkk ñuy ñëw si plage Ngor bi ñu ñëw nag ngir bàyyeeku. maa ngi soog a ñëw Ngor tey bi ñu Thiès Thiès. non laa jógee. Thiès lañ jógee dañoo bëgg yenn demaat féex a suñu xol xam nga changé air baax. restaurant yeeg hôtel yi ku nekk di jël sa wàll ci grandes vacances yi la ñiy loué pirogue yi ñoom itam nee nañu ñu ngi siy génn bu baax a baax. tàngaay bi moom ñëpp ay ñëw moom. surtout samedi ak dimanche waaw ah, ñoom moom Pira gi. non non duñ ko loué de mais kuy kuy traversé rek day fay 500 quoi. tout autour il y a des restaurants am na ay restaurants. waaw tane sant yàlla moom <laughs> sant yàlla ñu ngi tane <laughs> doxantu bu ndaw bi nag ci gaal gi dina ci baax ngir dooraat semaine bi en beauté mu mel ni it tuuti farñeent du si yàq dara. tàggat yaram bala ñoo tàggoo ñu wax rek ci basket senegal war a jàkkaarloo tey ci guddi ñoom soxna yi na tase ak Chine démb nag bi ni jàkkaarloo ak États-Unis ñoom dana nërmeelu score ba waa États-Unis am téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay poñ Sénégal am juróom fukk ak juróom benn mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen sant di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias bàyyi leen ak Baye Cheikh mu wéy ak yéen seen émission yeewu leen ñu ngi leen di ñaanal yéen di jàmm jërëjëf euh, Chérif Dia mu nekkoon euh, journalu suba gi euh, ci wolof ngërëm ñeel rédaction bu télévision Futur Média bu ca kanamee ñu àndaat ak yéen ci diggu ba bëccëg bi lay doon ci beneen journal en attendant bu ngeen bëggee tàggoo ak kumpa mun ngeen yër suñu site internet bi di www.igfm.sn tey nag ñëw nag liñ doon waxtaane sànq jëm ci wàllu environnement démb lañ doon célébrer journée nationale de l'arbre loolu defe naa Fama Thioune dina ci wax tuuti parce que sa euh, domaine la lépp lu jëm ci wàllu environnement on en a Euh, ci journal bi léegi nii ak euh, Chérif Dia euh, waaye dagg yi ñuy dagg garab yi te teguñu ko fenn nit defe naa di mun na jur ay gàllankoor te site bi def ci ñëwaat tey mën na jur ay gàllankoor bu baax a baax raison pour laquelle tey suñu thème ñu porté ko ci loo xamante ni moom moo ëmb la protection de l'environnement hmm. gis ñoo xamante ne ñu ngi ci beneen réew gis ñi nga que instant bi garab yi ñu ngi disparaître bu baax a baax et ñun ñoo ci gën a nar a gën a loru ñun ñoo ci nar a gën a sonn hmm. alors image yi noo comment xuus. voilà donc parenthèse la woon rek jëm ci euh, nit ci trois site bi ñëwee tey euh, ci euh, bis bi ñu jagleeloon garab voilà donc. ñu ngi gërëm bu baax rédaction bi et puis dañuy dem dugg ci région yi xool suñu correspondant yi tey dañuy dem Ndar bu ñu demee Ndar dañu fay fekk Ousseynou jóob mooy suñu correspondant ci dëkk boobu boobule Ousseynou ñu ngi lay nuyu mbaa jàmm nga fanaane naka naka Ndar. waaw ndara ngi nii rek ci ci wàcce yi ci vacances bien nu ngeen def nawet bi. waaw nawet bi de moom amagul yenn essai ndaxte xam nga ndar moom bu daan taw rek ñu ci bare daan taa jafe-jafe am ñu yóbbu waaye nag yàlla daf ñu dimbali ren ba. lépp nag egguñu ci. d'accord taw bi bare na waaye eggul ci ñuy sonn ak yóbbu yooyu moom. sant yàlla sant yàlla sant yàlla. voilà voilà bul ñu bul ñu catu ñun waa ndar. <laughs> <laughs> Ousseynou bu xesoo nawet bi lu ñu mën a jàpp cay xibaar foofu ca Ndar jërëjëf Pape liñ ci mën a jàpp mën nañ ko tënk sax ci ñeent ci ay pàcc ci njëkk xam nga ni eh, woo lu jëm ci wàllu géej gi nga xamante ni eh, jamono jile sonal na doomu Ndar yi loolu nag tax sax eh, ñi nga xamante ni ñoo dëkk ca dar démb rek génnoon na doon ñaanaat nguur gi ngir mu gën ci mën a jàpp ñoom nag ci ñu daal di taral loxo léegi ñu ni mooy njiitu réew mi di président ndaxte ñoom gis nañu daal moom kott moo ci mën di indi ay safara euh, la tax sax ñu yëkkati kàddu bokk na ci école Abdoulaye Mbengue Xaali école la boo xamante ni taarix da koy jàpp ci diwaan ak géej école boobu euh, toilette yi dafa daanu miir bi itam nërmeelu euh, géej gi am ci benn pàcc boo xamante ni dafa dugg ba am lu mu fa yàq ay salle de sax mu yàq ko fa moo tax sax ñoom ñu daal di yëkkati kàddu nii bu fekkee ni école boobee nguur gi daal di nay nërseelu ba mu daal di daanu wala boog sax. ndox ma egg ca boo moytul kon cimetière yi nga xamante ni ñoo nekk ci Kéem ak Càkk Njaay euh, ñu ni loolu la ñuy ragal ndox ma egg ca euh, te itam foofee xam nga ni euh, ku wax ndar wax Kéem ak Càkk Njaay Kéem ak Càkk Njaay ay érudits yu bare ñëw fa tëdd day buqe falu ndar day boroomi xam-xam day waliyu ñoom nag loolu moo tax ñu yëg seen i kàddu ni la ñu daal mooy ñu daal leen di jàppale ci wàllu woowu Euh, ngir nag doom benn jafe-jafe ñu ci sax talal nguur gi rawatina président de la république Macky Sall beneen jëm ci wàllu njàng mi xam ngeen démb rek euh, journée de l' ñu ngi doon amal ci diwaanu Ndar Géej euh, jëm ci wàllu bango ministre de l' enseignement supérieur moo ko doon parrainé li ci gën fës tax itam ñu daal ci dee siwaat mooy jëm ci wàllu série S yi mooy série scientifique yi moom professeur Mary Teuw mi ngi ci doon euh, gën a sàkku ñi nga xamante ñu yore wàllu njàng mi surtout euh, ñi nga xamante ni ñooy principal yi ak proviseurs yi ñuy gën a ñaax tout tànk yi ñu gën jëm ci wàllu service scientifique ndaxte moom jàpp na ni ci atum 1975 boo xoolee ci fa doon defee euh, lii di seen baccalauréat série scientifique boo ko xayma ak région bu Louga Matam ak Saint-Louis ñoom sax ña fa nekkoon ñoo ëpp ren jile ñuy def série scientifique ci diwaanu Ndar kon mu gis ni nekk na loo xamante ni dañ ko war defaraat xoolaat ko boo xoolee sax loolu daan nay feeñ ci wàllu concours général bi noonu ñaan ñu gën ci delsiwaat waaye tamit gën a suuxat wàllu scientifique bi benn bi jëm ci wàllu ñaari rakk yi xam nga ku wax ndar wax ñaari rakk yi sëñ Tuubaa Mbàkke Xaadim Rasul loolu nag juróomi fan ci septembre bi lañ ko war a amal ci ñu ngi ci wàccal bi dafa jege lool ak wàllu tabaski bi CRD na tey jii lañ ci war a amal ngir mën a xool pexe ki prox ndoll yu ñu jaar ngir lépp lu jëm ci wàllu organisation bi doo am benn jafe-jafe surtout wàllu kaaraange gi kaaraange gi wàllu sécurité bi ñaari rakk yooyu tey jile la ñuy defal CRD bi muy comité régional de développement le gouverneur de la région de Saint-Louis Aliou Aïdara Niang moom moo ko war a jiite te ñaar rakk yooyu comme ni ñu koy xamee chaque année ay junni junni doomu aadama dañuy jugee fu nekk ci réew mi jugee ci bitim réew sax di ko gën mën a teewe moo tax wàllu ko euh, événement bu ni mel événement boo xamante ni Serigne Touba Mbacké ci atum 1895 5 septembre ñëpp xam nañ li mu defoon fii ci diwaan Ndar Géej loolu nag la ñuy daal di waajal sport bi la ñuy jëkke ndax ku wax sport wax wàllu nawetaan te nawetaan yi jamono jile euh, diwaan Ndar moom léegi mu ubbi lenn rek mooy ci problème moo jëm ci wàllu stade yi nga xamante ni am nañ ko fi ndar stade Maître Babacar Sèye moo fi nekkoon ak ma Mawade Wade bi nga xamante ni dañ ko defar mu yees waaye lañ ci gis mooy stade ma euh, Baba Maître Babacar Sèye dañ ko daal di tëj 15 euh, octobre ci atum mille mille atum 2015 lañ ko tëjoon ba léegi tax nag ñi yore wàllu nawetaan bi ñoom jamono jile li ñu bëgg mooy ñu daal ko ubbiwaat ndaxte xam nga ni stade boobu dafa daanu woon bu mu daanoo am ñoo xamante ni ci ay jafe-jafe ñu blessé ñu yóbbu leen hôpital tax préfet bi ni ko woon ràpp tëj léegi nag euh, ñi yore wàllu ODCAV bi nee nañu bu fekkee lañu continuer di wéy di utiliser stade Mawade Wade mën na dem ba mu jëm yàqu wala sax am ay jafe-jafe yoo xamante ni boobaa ndar dootu am benn stade boo xamante ni fu lay jongantee moo tax sax ñoom it euh, yëkk nañ seen ay kàddu waa ODCAV yi nii la ñu bëgg mooy téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti ci ay euh, équipe yi nga xamante ni ñoo nekk ci di fa jouer seen nawetaan kon day logique ñu ni euh, stade boobu ñu mën ko ubbi ngir ndax au moins sax mu mën am ñaari stade yoo xamante ni day fonctionnel euh, loolu euh, ñoom it si la ñu ne beneen wàllu tàggat yaram bi jëm si wàllu dix de Saint-Louis course la boo xamante ni chaque année dafay am ren ji nag treize bi lañ ko le treize bile lañ ko daal di jàpp muy course boo xamante ni juróomi téeméer ci ay athlètes ñu ngi leen di xaaral di ci diwaan dal gi course la yoo xamante ni tam wàllu neexal yi day dund lool Euh, surtout ñi nga xamante ni ñoo daal ciy génn euh, ñu ci mën a gënoon jàppe mooy vacances citoyennes yi ñu ngi ciy waajal ndaxte ndar xam ngeen nit le treize juillet vacances citoyennes bi war na fi jaar Youssou Ndour sax ñu ngi ko fiy xaarandi ci diwaan bi mhm. euh, ñu ngi amal benn randonnée boo xamante ni randonnée li ñu ci gën a yitteel mhm. mooy day fexe wàllu changement climatique bi ñu mhm. gën ci taxaw wàllu jëndaar bi nga xamante ni jamono jure géej gi mi ngi ciy daal di song waa mairie bi nii la ñu bëgg mooy xamal askan wi jafe nga xamante ni moom la ñu am ci wàllug lii di changement climatique informatique bi super en tout cas am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax Ousseynou Diop yaa ñu teewal foofee ca Ndar euh, yow cote rédaction nga fa nga féetee xanaa ñu bàyyi la rek nga daw àggali liggéey bi te xam ni ca kanam euh, daañu àndaat ak yow soit ci rajo bi wala suba ci journal bi l'Observateur wala sax euh, ci jotaay yi amal ci télé bi ba noppi nga lu am solo lu jëm ci wàllu environnement ak réchauffement boobu la nga xam ne nii ñëpp ngi koy jooy moo tax Fama Thioune xam naa ca kanam dina wone benn exemple boo xamante ni képp ku bëgg te fonk environnement defe naa déjà euh, nga keroog bi nga ko séenee muy ouverture Jeux olympiques yi am ca euh, dëkk bu ñu naan Rio alors nit ñi euh, yu rafet yeek yu neex yi ak sport ba leen daanaka intéressé woon ak li athlètes yi sañ seeg ñoom seen mais leneen moo attiré attention fa Famatun et pourtant lu am solo la muy nii jëmbët gi ñu doon jëmbët ci fii ñuy amalee compétition yi et c'était magnifique je pense ah, di nga ci ñëwaat bu ca kanamee comme ça ça nous permettra ñu gën a ñaax nit ñi ci wàllu environnement parce que bu yàggul rek euh, amal nañu euh, daje bu mag ca Paris jëm ci wàllu environnement COP 21 lu tuddoon. waaw euh, COP 21. de l'environnement. Ah, am na un an maintenant. 25 mhm. juillet la woon. Mhm. alors euh, boobu dinañ ci ñëw à la fin de l' parce que mercredi incha allah dañu fas yéene invité koo xam ne c' est professeur. bu maîtriser lépp luy théorie de l' ah. donc il va falloir que ñu ñëwaat ci pour laaj leen est ce que décision yi nga xamante ni ont été prises là-bas. Mm nañ ko wala commencé nañ li nga xamante mooy démarche yi ñu waxoon dañ koy def foofu. Mhm, mhm, donc loolu nañ ci ñëwaat incha allah bi. Euh, kii yaguñ euh, ko impact bi la ñu bu baax a baax. surtout a dina ko mën a yàqal yeneen réew yi donc surtout l'Afrique man gis naa benn vidéo bu ñuy euh, bu ñuy expliquer euh, affaire yi ni muy jékkee-jékkee température bi lan moo tax mu yokk depuis 2015 par exemple tàngoor bi dafa gën a yokk euh, fan yee dégg ngeen te suñu faute la xamante ni mi moo ko moo ko ñëw moom léegi mm-hmm. am na ñoo xamante ni amatuñu fu dem érosion côtière bi ak mm-hmm. yeneen ak yeneen ah. de la mer donc yooyu yëpp te ñun ñi suñu bopp ñu ñooy tooñ suñu bopp donc je pense que bu ñu expliquer mbokk téléspectateurs yi expliquer ñi nga xamante ñu ngi seetaan am. lan moo koy waral. donc je pense que ku ci nekk ci ñun dinañ def introspection. la nga doon def. boo xamante ni dafa yàq environnement bi nga xaw ko randuwaat tuuti rek. daal di bàyyi. ok donc je pense que dinañu arrangé gaz bu bëri bi gaz ah, bu bëri kii bi du jël. terre la terre. la terre. ok tourne autour de la terre. oh la là la terre, il, il veut que ñu ñëwaat ci ay effet de serre. mais effet de serre bi man moom mu jaaxle dégg naa ay gaz yu dajaloo la. UV tu veux qu'on reparle de tout ça. wuy noonu noonu da nga namm ko noonu muy mooy dem ba ba ba ba terre day étouffé. <laughs> c'est grand. xam leen gaz surtout bu carbonique bi. waaw bu baaxul moom. CO2 bi c'est à cause de l'être humain yenn usines yi nga xamante ni yenn industries yi nga xamante ni. gaz carbonique. li ñuy rejeter dafa énorme. gaz carbonique égoïsme rek. Ah, on se rend que yow boo ko subirul say doom dinañ ko subir. wala évidemment que l'impact ñun ñëpp la nara laal impact bi moom amu ci euh, kii moom moom boomu usine beeg moo gën a riche. keneen ki ñun ñooy vivre ci environnement bi donc impact bi ñun ñëpp ñoo ko dara a mhm. mais inch'Allah on parle jamais sans l'avis des spécialistes. mercredi on aura un professeur. qui maîtrise parfaitement ses théories. voilà merci beaucoup <laughs> Famatou gaz carbonique. effet de serre na mu da ngaa am sens mag ma ma ma feebar. 8h22 <laughs> mooy doog a jot. télé boo xamante ni amul arrêt maladie amul repos ah, médical. amul fi de amul fi de ah. loola jot. xaw ma lan la. alfiya tooñi rek tooñi ko ma dal <laughs> alfiya ko joxul ay garab ba ba mu xëyee ba tey. pourtant jox nañ ko li mi ngi ne ci kaas bi ma demal mais dafa sedd. sa garab gi dafa sedd. <laughs> garab gi dafa sedd et puis dagg tunguru nga ma jox tey. fi garab gi dafa war a tàng. ngeen a tàng mais garab normalement boo koy naan dafa war a sedd. te alfi Pape mburu bi baaxoon na de. Ah. daf maa woowaat ba ma ñëw. ni ma kaay ma ñëw mu ni ma daggaat ci ma dama jox <laughs> yaa liggéey lii. man du may faral di desal sax. bokkul sax samay samay aadama du ma desalaate. yow da nga am chance sax. boo ko lekkul rek nga delloo ma mburu bi man ma lekk ko. waaw. li la te nga ma koo jox ma dellu. <laughs> ki nga déggee boo demee ndax chocolat bu baax chocolat la. <laughs> attends mais attends chocolat mais bu baax bi la bu baax bi la. bu baax bi kay. Eh, chocolat bu baax bi la de waxuñu ko diwlin de. soppeeku bi waaw ban la ci Nutella. Nutella <laughs> ok ah ku leen bàyyi tamit nag. loolu dafa neex de. kii yaa en tant que yow. ñun bu ñu dëkkoon bu ñu bëggee chocolat yi chocolat yi mat dañ ci def diwlin. diwlin pap yow nga yëngal ba mu ndoxee. balaa sa xol a jeex nga dem ci jënd ci jàll bi jënd ci cuun bi ne ko cuun jaay beurre ak chocolat. waaw bu la jiwal xol bi day wadd ndax da nga gis chocolat bi ni mu ndoxee mais t'as pas le choix. diw di nga ko rax. Eh, mais boo ko dalee jënd. non non dépense fa cher xam nga dafa métti. non non non mais boo màggee doo boo màggee doo ko rax. doo ko rax man dama koy rax man dama. non non doo ko rax mënuma dëkk ci jënd. damay rax su ko daan doon tooy tàmbale rek. non non man moom du ko rax bu pur bi. yow doo rax man de bu pur bi laay jël pap. yow bu baax doo rax man man du ma rax. waaw man damay rax. yow da ngay rax parce que da ngaa bëgg da nga njaboot kenn du ko rax pap yow. kii yaa njaboot te mënuma chaque semaine di jënd ko bu bees. ba pare buñ la yónni waat mburoog quelque chose il faut nga. loxo ci 15 10 waaw man ma daan jamonoy 15 10 mburoog mburoog chocolat. yow tamit maa fekkee 15 10. ah, ah jamonoy 15 10. man la 15 10 nii yow tamit man fekkee naa 15 10. yow mooy kii mburoog toog fekkee naa 15 10. waaw fekkee naa ah, bu fekk na boobu fekk na faama kii woo. ñett dërëm bu ñaar dërëm bu commencé waaw waaw waaw 15 10. kon parce que 25 25 nga daan joxe. sa moromu papa la joxe nga am gën nga lekk papa juróomi dërëm. ñu de ay dofa dajaloo tey ñun ñëpp ay xarit la ñu moo tax émission bi lu ci ëpp waxtaan entre nous lay nekk quoi voilà Bouba waxal benn. mburok dëwlin mburok dëwlin c'est vrai ah. mburok dëwlin mburok eh, eh, dëwlin man dama ko daan lekk. mburok oh, dëwlin je te jure. dañ ko doon lekk dañ ko doon lekk. Ah. mburok rosi bi. Ah. diw diw ceeb bi rosi bi. mburok ah diw ba oui ba mi dee dem mi ngi. ba oui mburok diw. diwlin ba oui mburok dëwlin kay. mburok dëwlin non non non daawoo seen parce que daaw taa ceeb da nga naan beurre la day am goût beurre mburok dëwlin géej bi yow ban diw yi géej bi faama bëre faama dafa doon dafa doon neex bu ñu la indiloon ay croissant tegal la ko ah oui c'est vrai non plaisir boobu donc mburu euh, chocolat bi dañ ko doon rax ak diwlin. ñu yónnee la mburoog mburoog dara mburoog chocolat nga loxoti ko. ak mburoog diwlin bi waaw Mar yow dafa ko ba taay yow c'est vrai de yi yaay xale yooyu nga xamante ni buñ leen yónnee lekk dañ koy loqati yow yaa ngi may doog a jox bar xeetu xale nga woon yaa ay jongoma ngeen woon dafa daa may xale jongoma daa may xale yoo xamante man jongoma laa leen tudde yow xale jongoma nga woon la yónnee da nga na ci yow de kaay wax la <laughs> ñun enfant mal nourri la ñu woon. grosse tête gros ah, bidon ah et mais ñii ay xale jongoma la ñu woon ah, tonton mag DJ Bouba. yaa ma limal la waa jongoma télé bi yaa ngi. ay bay DJ Bouba. petit ak tonton mag. et eh, ils sont en bonne santé. ils ah, mangent bien et eh. eh, <laughs> ils sont en mais nous autres on était xale xale mal nourri xale grosse tête xale xale xale xale grosse tête ak boo xoolee Monty rek ni muy daagoo di branché ay fil si vous ne le connaissez pas c'est quelqu'un qui travaille là euh, technicien la peut-être que yéen mosu leen ko gis donc moom tamit ci xale jongoma yi eh Racine moom xale jeeg la woon <laughs> c'est vrai ah eh yéen a ngi reetaan loo xamante ni ci xale dafa am ñoo xamante ni ay xale yu teel a jongoma. mais man Pache bi ma nekkee xale dama pataawoon. yow xale jeeg nga woon yow tamit duuba jeeg. mais <laughs> man dama dama pataawoon bi ma nekkee xale. xam nga li ñuy def bàyyi seet. ku nekk indi sa sa foto xale. ii ah. bu baax bu oh, ah, yow. ah ba sama yow wër na Sénégal. man nëbbu ma ci yooyu yow nag bu ma sama dara. Pape Cheikh man nëbbu ma sama dara. man sama bëgg gis ngeen man bëgg ci dama ko <laughs> yow tam kii ñëw toog. ñii du ñu dem no xale jeeki mais non mais non mais en tout cas. Ah. Euh, de toute façon ku nekk am na foo am na foo jaar. ci sa xaleel quoi on a souvent des souvenirs. mais je rappelle que li tax ñu ibbi woon parenthèse bi li ma alfi desal la ci mburu moo taxoon ñu doon fàttaliku un peu. Euh, suñu ay ndekki à l'époque pain boulette. Ah, on se rappelle de ça c'est c' est vrai ah oui moom la reer bi tey le lendemain say ay soosal la ko. koy soos bi laaj dëgg la de dëgg de da doon neex nag. ah ouais ah, ah, ah ouais juróomi dërëmu meew juróomi dërëmu café. waaw waaw waaw léeg-léeg da ngeen di génn récréation ah mburu Ah. mburu bi tàpp ci biir sac bi waaw. dëgg la de bi pomme de nga génnee ko mburu bi tàpp. je xale yëpp seen lekk bu jeexee yow rek nga desal yaay nekk staru école. Ah. ma xam da nekk ndaanaan. ma ma xam nii laa daan def. voilà mais tuuti <laughs> mais tuuti léegi nag bu desee comme lii ñu noos. nga dëkk ko ñu noos. mais mais amoon na xale yoo xamante ne dañ daan xaar ba nit ñi di concentré wu <laughs> lundi matin ñu dugg ci suufu taal bi. sàcc <laughs> goûté yëpp. <laughs> Pape ñooñu 10 heures rek. a mel ni sàcc katu goûté la woon. bu neex laa leen di waaj a wax. xam na directeur télé bi mu ngi waaj a bind suñu dàq bi pour leen ñu def émission de façon sérieuse ñu waxtaanee ay yëfu ñàkk xorom. mais dàq ko ñu dañoo sonn ñu sax dañoo sonn te bëgg bàyyi. nañu jël reportage yëpp ñu annulé ko ñu bi. ñun ñu dindi ko. ñu ne. ñun ñu dindi jàppale leen sax yéen ñii seetaan jàppale leen RTS ñu ngi kéekeli baax voilà tonton nag coupé ñu bu la neexee ñun sax dañoo sonn. nee naa leen naanoon ay garabam yéen ko bàyyi ñëw toog te jox leen ko ay garabam. ma ni wax ko du tase gerte gi. bëgg a dem deewit yéen tamit da bëgg a nelawi. ñu may jàmm léegi ma ni waaw mbërëb bu yii wax salaire daal yéex. bugulee. xoolal gars yi zappé nañ la. Eh, gars yi zappé nañ la. merci. lii moo ñu gën a dañoo sonn wax dëgg te fekk gersu la. voilà yow. tey nga ñoo wane ñun ñu ngi ah, kon. kon su ma piqûre du ngeen naan dooma c'est question de salaire waaw je regarde certains journalistes qui sont en train de regarder ils sont en train de faire mais ñii lu ñuy wax nii ils sont pas sérieux c'est que suñu rédaction bi bëri ay seytaane mais ñii sont pas sérieux c'est la télé et alors on s'en fout jappez si vous voulez ay ben ouais dañoo sonn quand même oui mais kii après il y a des jours comme ça où tu deviens fou. Ouais. c'est ce qui m'arrive ah, je deviens fou. bàyyi ñu jàppale la ci sa folie bi rek kon. ah ngeen ñu jàppale la ci rek. genre léegi bu ñu leen dàqee da ngeen naan ay da ngeen dofoon moo tax. mais bu ngeen wéree. Fatou Seye moo <laughs> allez 8h30 mooy doog a jot on vous souhaite encore une très bonne journée c'est vrai que woy bi jàll actuellement mooy sama garab euh, peut-être bu ca kanamee ngeen tegalaatal ma ko comme ça ma féexal sama xol quoi juste vous rappeler que démb moo nekkoon journée nationale de l'arbre ba tey tamit sa domaine la mm-hmm. n'est-ce pas mm, loo a wax tey euh, on a donné l'exemple ñu ngi doon de reboisement waaw <laughs> ñun doon def reboisement ay côté Dieuppeul beaucoup de côté à Dakar ñu doon def reboisement bi pour wan leen importance bi nga xamante ni garab moom la am ci suñu environnement importance bi nga xamante ni garab moom la am et je pense que Jeux olympiques yi xam naa dama cay xuus directement parce que. Euh, journée nationale de l'arbre bu dee. dama ciy dama ciy xuusaale. d'accord dañ ko montré ils ont mais journée nationale de l'arbre kay ban année lañ ko lañ ko lañ ko créé. ay tey mu rey ko. tey mu rey ko maam Sira maam Sira. Mam Sœur, tu es où là faut me dire vite fait la réponse. <laughs> c'est bien fait pour toi. non dama ko fàtte dama journée journée mondiale de l'arbre euh, tey mooy la journée nationale ah parce que Sénégal lañ ko doon célébrer. donc on a mhm. regardé ça dans le journal le 8 heures. Euh, dinañ ci ñëwaat et puis tey mooy journée international figurez-vous du chat. chat mousse chat mousse waaw. Oh. oui mais di jagleel euh, en anglais. Kate. Kate. ah kayit la ñuy wax. kayit man A bi laa lire ah ok ah, le dis en français toi. <laughs> je j'ai vu. man du ma ko lire en A T. après espace D. donc man noonu la ko lire. waaw. ok et toi le prononces comment ah. on le tu le prononces comment. Kédé. <laughs> trouvez-moi ah, de ça s'il vous plaît. parce que am na ay nit yu bëgg yu bëgg muus en fait Euh, est-ce que am nga am nga muus. ma man. léegi dañ ko def par kenn kenn bu leen waxandoo ah. bu leen rey muus bi waaw monsieur waaw. waaw man Pape dama dama am euh, au fait faible bu faiblesse muus. man dama dama dama yar muus.

amatuloo. amatuma parce que espace ah. bi ma bi ma bi ma nekk moom ko permettre wul mais su ma su ma yàlla mayoon tey kër. du ma sax yam ci benn pape dinaa wut ay ah. sept mousses. Ah, par contre Ndeye Ndack elle a une belle chatte. waaye elle a une belle chatte waaye qui s'appelle Diba. Diba la tudd ah, a une chatte. Euh, chez elle euh, donc moom tey xam naa dina kontaan parce que mooy bis bi ngay jagleel euh, mousse voilà c'est la journée internationale des chats ñun fii Sénégal nag farataalu ñu noonu di jël ay mousse du côté et tout ça donc dafa bëri ay ay cha et des chats sauvages. oui man duma ko laal duma ko mais après dañ naan baax na ci kër je sais pas. mais Cheikh Fall aussi il a une chatte très mignonne. Ah. Ah si. mais mais c'est-à-dire des fois dama koy naan est-ce que yow ni ngay toppatoowee kii di nga ko toppatoowee. comment parce que il est sur Snapchat et tout le temps. Ah, il le snap <laughs> il la snap. ah euh, quand elle prend sa douche. Euh, ah il t'a vu sa chatte c'est cool ça. ah mais chat elle, elle, elle est super jolie. mais mais Mousse Pape Cheikh naqariwul toppatoo parce que soo gisee yow li ngay lekk. di nga am déchets yoo xam ne danga koy sànni bu dee jën ku leen bàyyi ah am déchets yooyu sànni je ne mais nga jox ko ko mu lii meew juróomi dërëm mu meew nga xóoyul ko jox ko mu lekk donc ah muus jafewul toppatoo muus dafa am budget peut-être laaj mais jafewul jafewul toppatoo moom parce que amuñu estomac bu rëy te duñu consommer lu lu comme xaj par par exemple muus yu rëy rëy yooyu nag bokkul ak muus les matou waaw ah euh, moi j'ai ma meilleure amie bu am muus mhm. mais kookoo gën nit parce que da koy nduggal. man daal j'ai pas compris di foofu. moom moom euh, moom ijab la donc moom li ko ci intéressé mooy nee na moom moo nekkoon euh, àndandoowu Euh, prophète bi ci lu mu la wax donc moom moom loo tax mu bëgg muus nee muus sax dafa baax daal am na ci ay bienfaits yu bëri mais man du ma laal du ma jege déjà je suis asthmatique je ne supporte pas ñi ñi am asthme ñoom waruñu euh, ah. tey journée ñi ko bëgg bëri nañ euh, dañu koy dindi ñi am ay muus les chats sont à l'honneur ah, fii am na ñu bëgg chat ci kër gi moom fii dafa bëri muus ah, waaye yow da nga leen di door ay tam jibi da nga fàtte jibi si jibi muus bi ah muus bi fi nekkoon moom deewul. il est là ah. il est là dafa ko gëj a gis di. dafa màgg sax dafa dem ba jabar ji demee ba tey gis. dafa màgg sax ba bii ju demee léegi daf gën a màgg. non Moussi tey moom <laughs> voilà donc tey mooy journée international euh, euh, des comme quoi chaque jour euh, euh, nga gis journée international ils en ont tellement ah, ci ay journée mondiale wala internationale ba finalement am na ci yoo xamante ni sa fait souvent rigoler moi en tout cas bis bu ñu jagleel muus yi ñi bëgg a muus dinañ mën bis bu noble la mais moi je dirais ça me fait rigoler pourquoi ñu créer ko je sais pas ils ont même créé journée mondiale du Nutella yi ñuy def ci mburu après finalement mooy loolu ay ah, journée bisoog journée journée tout ah donc tey mooy journée internationale euh, du chat alors 8h53 mooy doog a jot juste après publicité yi on parlera emploi ak kii a bëri ngeen euh, ci li ñu yónnee seen ay CV pour euh, ñu wutal leen liggéey donc on sert juste d' intermédiaire entre ñu koy joxe ak euh, yéen ñu koy wut dinañ jàllale seen ay CV ba noppi tam joxe ay conseils yoo xamante ni ça peut toujours servir entre autres on parlera bourse teg ci tamit buñ ca noppee daañu waxtaane tàggat yaram ak Mamadou Ndiaye participation Sénégal ci kii démb defe naa li ñu Amérique def euh, euh, teewul ba tey ñu ngi xaar Chine oui mais sant yàlla am na am na ndam ndam waaw am na ndam te xam naa après ni ñu ko gën a ñëw yaatal uh-huh. door nañ ñu waaye euh, am na benn record bu ñu baat quand même voilà mu nekk lu am solo ok c'est hier que j'ai vu que am na fédération sénégalaise de ski oui j'ai tellement rigolé. waaw mais fan fan lañ koy defee yooyu ngay xalaatee ko waaw fu ñu koy defee loolu mooy même même même en général du du fii lañ koy defee. ah du fii lañ koy defee non non. ma defee ni fii lañ koy ah, defee. ah si mais si am na fii am na foo am neige fii. Ah, mais c'est pas possible de gérer euh, une Qatar comme ce qui se passe au Qatar. Oui. d'accord Qatar am na fa xam nga. moom la Qatar <laughs> bon en attendant dinañu wax ci ñoom daal bu ca kanamee mm-hmm. et puis euh, am na ay camps yoo xamante ni gars yi dañ koy créer di ci recevoir ay xale. Mm-hmm. Euh, pour jàngal leen sport nous sommes allés à la rencontre de quelqu'un boo xamante ne actuellement. Mm-hmm. Euh, ci wàllu basket il regroupe beaucoup de jeunes. et puis Alfie bu ca kanamee di nga ñu toggal comme chaque lundi yu oyof tey par exemple comme tous les lundis salade la ñuy am. qu'est-ce ah. qu'on mange tey on va se faire Pape Cheikh benn salade. Euh, de bœuf euh, salade de bœuf à la mangue je crois su ma jumulee mhm. moom la xel mi xaw naa dem mhm. donc particularité wu salaat bi pap mooy euh, dañuy dañu dama andi li nga xam ne lépp mooy légumes légumes yi nekk en boîte ci boîte de conserve yi ah. donc plutôt que légumes yi may indi en général donc xool lan yan ban goût lay joxe uh-huh. donc salade bi nag dafa am ay dog parce que am na ay filets yu baax yoo xamante ne moom mooy nekk base bi. Euh, def ci mango donc mhm. toujours avec les beurre sofia. Mhm. facile à ba nekk ba pare mu nekk benn salade complet boo xam ne mën na leen servir d'entrée. Mhm. comme plat de résistance donc ci kanam rek bu ñu ficcee ku nekk di ko mën defal sa kër papa. super kon ci kanam ñu lekk salade bi yow nag boobaa lu la fi indi tey. Euh, constaté observé. <laughs> ak lekk si salade. constaté observé. <laughs> loolu ah, Bouba ah, dañ koo y dañ koo yónni mais à partir de ce matin on le retrouve euh, les lundis ci euh, yeewu leen bi parce que moom it am na yu am solo yoo xamante ni euh, taxawaayam mën na ci mën na cee neex par exemple suñu artistes yi ce matin mm. Bouba nous a présenté single wala woy bu bees bu Viviane un très beau titre mm. tey mooy coup de bi di dinañ ci ñëwaat tegaat ko mm. mais am na yeneen nouveauté yoo xamante ni indil indil nga ñu ko donc dinañu def suñu benn top 5 pour voir woy yi nga xamante ni ñooy cartonné après au ah. fii Eh, été bi jeex euh, téléspectateurs yi ñooy tànn peut-être euh, ban woy mooy nekk tube de l'été voilà donc ce sera avec euh, DJ Bouba en gros c'est ce qui vous attend on a beaucoup d'invités ci ginnaaw yu ñëw pour neexal suñu bëccëg en attendant ñu jàll ci publicité yi et puis juste après on se retrouve pour la suite